waaye yaay dama lii fii mu tàkk daal fa damay damay gën a ah mooy waa ji génn noonu ah

waaw ñun ñoo waxoon boobu ñu ñëw waaw yéen ñëw nañ ko ci ginnaaw. bu dee ko sax waaye ñoom ñoo ñaan xam nañ ko. waaw ñu ne la waxee ñoom ci nekk waaye ñun ñu ne la ñu ñaan rek ñoo fal ñu ne ko fal ñëpp dañoo ñëw pour demal rek. tamit tamit.

boo taxawul fii gars yi bari na ñu puus nii nii nga xamal diggante lii bu la rawee combat bu la rawee du la jox dige arama arama ñanga arama

France ñëw nday fii yóbbu sama tur bi jël nga dem ci liggéey ci bari am na ñu war a jox carte bi am na moom baraza dañ ko joxagul na man mii sax joxagul na baraza yow yow mais bu la joxee tigé nga jox ñu ma baraza tamit da ngay da ngay pet boo demee doo dugg a dewro a dewro boy dégg nga ko dégg nga ko baraza par favor damay di baraza di ko yor ci yor bokk yi rada ngay noonu jaay ñoo di bay sama xaalis yi di jaay ñoom ñoo di bay ba mais da ngaa bi mais gars yi ñoo ñoo ñoo bi Wala, ikaw. Kailan?

dox dox dox la rek ngeen doon mbokk loolu ngay noonu mbokk yi génn si kër yi pour dem yéeg si oto bi dem stade euh, c'est vraiment triste waay amiin duñ doon ay mois ay heure

ha <laughs> ha